di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande tey borom jéggal mu boore nu jéggal te yërëm nu di ñaan tàllal suñu loxo itam di ko ñaan ci bis bu tedd bii Cheikh Mamadou taxaa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñu boroom gën koo jox kattan akuk man akuk tal ba lim yéene defal lislaam te yéene ko ci nit ñi suñu borom jàppale ko ci te ñu ànd kook moom daje ci ngërëmug suñu borom képp koo xam ne itam sa sa tool mooy lislaam ñi ngi lay ñaanal suñu borom kattanal la. jox la ak man jox la ak wér ba la nga yéene def ci lislaam nga def ko te ànd kook ña ngi ko àndal te daj ci ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu nag ñu nekkoon di ñu nekkoon di waxtaane ci ajjuma ji weesu ci loo xam ne mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama ndax dafa doon loo xam ne da koy jàpp ndalal ak dundam dafay doon loo xam ne itam da koy musal ci bakkaar yoo xam ne seq na seq na digganteemam ak boromam te loola mooy njéggal jéggalu ñu waxoon ne njéggalu day lu am solo la ci dundu jullit ndax doonut loo xam ne day doon da day da koy tàggalee bakkaar ba nga xam ne moom laa amoon képp waaye suñu borom da ciy dëli ne képp koo xam ne yaa ngi jéggulu du ma yem ci ba ba baal la bakkaar bu waaye na mën a defaree sa àdduna ni may defaree sa àllaaxira ëllëg ni lay defaree sa àdduna tey jii mu doon kon loo xam ne lu munta ñàkk la ndax dafa doon loo xam ne mooy tax ba li ñu të te mun munuñ ci dara lañ ci mën a dimbali mooy suñu borom te loola mooy delluwaat te njëggal mooy delluwaat jégglu mooy delluwaat ci suñ borom xamal ne ko yow rek la xam ne xamal ne ko ne yow rek yaa man xamal ne ko yow képp yaa am kàttan xamal ko ne itam yow yow ñu ñuy ñun de say say jaam rek lañu bu boobaa nag la nga xam ne tënuñu te mënuñ ci dara buñ ko waree ne ko yaa fi nekk wan ko ne ko yaa ñu ci yaa ñu ci mënal yaa ñu ci mënal dara bu boobaa danañ dina ñëw ak yërmandeem te bu ñëwee ak yërmandeem yére yërmande ji du yam ci jàpp defal la ak jàppandal ci àdduna si kese waaye da lay defal ak jàppandal ci àllaaxira ak àdduna si te loolu moo ko waxal boppam yaa qawmi istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursilis samaa'a aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara mu mel ni kon jégglu dafa doon loo xam ne am solo la ñu waxoon ne nag am na ñetti baat yoo xam ne daanañ ko wax ci ci jumaay Tuubaa mu doon ñetti at ñetti baat yoo xam ne bu ci ne dafa am cosaan bu wér ci biir lislaam muy nañuy tuub nañ sax ci tuub tey tey nañ sax sax sax ci tuub tey saraxe tey balonte ak mu mel ni ñett ñetti baat yooyu bu ci ne am na loo xam ne nañ sax ci sax sax sax tuub tey sàkk sarax tey balonte ak mu mel ni ñetti baat yooyu bu ci ne am na aslu wér ci biir lislaam ndax bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xamal ne na ngeen di bari lu ngeen di jégglu ci suñu borom ndax man day mi nga xam ne suñ borom topp ma dara jàpp jàpp ma du ma jàppal dara itam téewul bis bu nekk dinaa jégglu ci bo dinaa jégglu lu ma téeméeri yoon mu mel ni kon li muy tekki mooy dañuy woon rek ne moom day sax dafa saxoon ci njégglu ak tuub waxtu wu nekk kon nag ñun ñi nga xam ne xamuñ lu ñu su xamuñu luy suñ luy suñ mbir xamuñu fuñ jëm xamuñu lu ñu suñ borom denceel ëllëg nañu gën a jégglu suñu borom gën koo tuubal ndax mooy tax li nga xam ne moom la dëële ci ku tuub ma ñu mën caa jot te loola mooy defarug àdduna ak defarug alaaxira kon yàlla ñu suñu borom gën a jàppal ci ba jàppaleel boppam ba tuub googee ñu di ko gën a saxal gën a delluwaat ci suñu borom xam ne moom képp mooy ki man ñu jox ko ak xam jox ko li nga xam ne moo moo ko moom ndax xam nañ ne lim moom moom képp moo ci mën dara keneen mënu ci dara kon nag nañuy delloo suñu borom li mu moom ndax bu ëllëg ndax li nga xam ne mënuñ ca dara te moom rek mooy ki man lépp. bu boobaa lañ mënu dara mu mën na caa jàppale ba mën caa génn na nga xam ne lañ ci war a mu mel ni nag doomu aadama bu nekkee ci àdduna si dafa am ñaar ñu mu séqal dafa séq ak borom séq ak ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom la bokkoon nekk ci kaw suuf yi ne xam ne ñi nga xam ne ñoom la suñ borom di séqal suñ nag la koy tàqaleeg loolee ci lu mu ca def ci lu mu war a def mooy muy tuubal suñ borom am na loo xam ne nag ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom la bokk nekk ci kaw suuf moom la ko seqal te loola mooy àq yi nga ni moom lay def ci ñoom moom lay def te àq yooyee ba ñu ko Sëriñ Tuubaa leeral dañoo wax ne àq yooyu munta ñëw ci lu dul ñaari mbir rek benn nga tooñ ko ci alalam wala nga tooñ ko ci ab deram mu ne nag alal moom yomb na ay mbir ndax benn bu fekkee ne dalaa lebal bor nga toog ba mu yàgg mu yàgg bor ba yàgg nga jàpp ne fàtte na ko wala nga fàtte fàttali ko yow fa yow ko nanga nga xam ne bor boobee war na la ak ak loo ko ñàkk ak loo ak nu mu mën a yàgg-yàgg na nga xam ne bor boobee war nga koo delloo boromam bu dee bu dee itam da ngaa da da ngaa jël alalam te xëy na yëgu ko nga jàpp ne ñàkk yëggoogee ba ñàkk la koo laaj tax na nga war ko mën a lekk déedéet na nga xam ne alal jàmbur nga yor te da ko war a delloo bu ko defee nag alal jaww jàmbar jooju yi nga xam ne da nga koo yor te war koo delloo nee na la bu fekkee ne ñaar yi rek mooy ma nekk nga dem delloo ko ko moom mu nekk mu fekk mi ngi dund nga delloo ko ko lu mu yàgg-yàgg delloo ko alal ja bu fekkee ne itam nekkul di kuy dund nga xam ne yàlla jëlee na ko fi alal joojee lu yàgg-yàgg delloo ko ña nga xam ne ñoo ko war a donn ndax ñoom ñoo ko moom bu ko defee nag day mel ni loolu boo ko defee wàccew nga ak sa kaw kee nga xam ne moom nga yoroon alalam waaye nag bu dee li nga xam ne ab der la nga xam ne da nga koo xas wala da ko wax wax ju ñaaw wala da nga koo tuumaal ci dara na nga xam ne loolee moom nee na dafa comme suñ borom moo moo ñu xamal ne wala yaxtab baadukum baada a yu yuhibbu ahadukum an yakula ak axihi maytan mu mel ni dafa mel ni kon lépp loo xam ne def nga ko ci lu ñaaw ci dërëb jàmbur dafa mel ni yaa ngi lekk jëmm joojee loola nag danga nga war loolee nga lekk ta nga xam ne dëganul war nga ko jéem a daganal nan nga koy daganale nag mooy bu fekkee ne mi ngi fi nga dem ca moom jéggalu ko ne ko te jërul ngay àgg sax fa nga la nga wax wala la nga la la nga tudd ci moom waaye nag ne ko man dey am na loo xam ne wax naa ko ci yow te loolee nag maa ngi lay jéggalu nga baal ma àq ci loolee bu ko defee moom mën na laa jéggal ca loolee nga xam ne moom nga moom nga séq moom bu fekkee ne nag dafa doon ndax doomu aadama day dafa doon koo xam ne dafa soxlawoo ëllëg aw yiw ndax dafa jëm ci kër goo xam ne kër gu fa lay saxi ëllëg te sax boobee amut amutu ab kon nag képp koo xam ne yaa ngi tukki ci jëm ci barab boo xam ne foofee ngay sax te sax ba amut ab loo doo xeeb dara ndax yëbbal loo ci am rek doy la doy ba tax na lépp loo xam ne nag mi ngi koy yaa ngi koy tooñ ab jillit wala tooñ nga ko doomu aadama ci ab deram na nga xam ne loole àq la joo xam ne du la wàcc li feeg jégluwoo ko ko moom moomee bu ko defee nag du bu fekkee ne mi moom ma moom nga koy jégglu waaye bo wute naag alal alal moom bu fa waa ji nekkut man ngaa dem jég mën ngaa mën ngaa dem delloo ko ñi nga xam ne ñoo koy donn waaye ak ji nga xam ne moom nga yaral nit ki nga xam ne moom ci ab deram nga ko wax lu ñu wax ju ñaaw wala nga jëw ko wala nga xas ko wala nga tuddal ko loo xam ne doonul lu rafet ak joojee moom moom moom moom ma nga ko seqal képp nga moo la ko mën a jéggal ba tax na bu fekkee ne nekkul moom waajoojee amoo ci menn pexe mooy def ndudut xam ne dinaa ko ko fay ëllëg ci fay googee ma koy fay du doon lenn lu dut li baax li ma doon def ci lañuy jël fey ko ci àq fay ko ci àqam lu baax joojee nag kon nee na li li la war a war mooy nga jéem a góorgóorlu fas yéenee bari bari sa lu baax ndax bu ëllëgee xam nga ne àq am na àq joo xam ne yor nga ko te faaw nga fay ko bu ko defee nag xëy na boo barilee aw yiw nga mën ko caa fay sëriñ Tuubaa da daa wax ne bu leen jox seeni yiw nit ñu baax ñi bu leen gàddu ñaawteef yi ñi nga xam ne itam ay tooñkat lañu nan ngay joxe sa yiw nit ku baax mooy da ngay fekk nit ku baax nekk ca lam war a nekk di góor góorgóorlu kem talaay kattanam nga di ko tuddal nga di ko waxal dara lu ñaaw na nga xam ne loolee nga ko waxal ci lu ñaaw day ca moom lu baax li nga amoon lépp da koy jël ndax moom maanaam lu lu baax sa lu baax la ñuy jël ñi nga xam ne nag ndax moom lu baax la am kon lu baax lu baax rek nga koy mën a jox ki nga xam ne nag xëy na da dafa nekk ci la ko la ko war nga di ko tudd ci loo xam ne waroo ko ci a tudd di yàq ab deram na nga xam ne moom moomay ñaawteef yam am rek ngay gàddu bu ëllëgee te doolo li ñu ko won mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne ki perte mooy ki nga xam ne nekkoon na fii ci ëll ci àdduna jàpp ne li mu war a def rek mooy li dox yi ma borom daal nu mu ci man ci rafetal na ko def nay julli nay woor nay natt asaka nay dem màkk bu ko mënee nay def lépp loo xam ne lu baax la ci digganteem ak boromam waaye nag digganteem ak nit ñi nag jàpp na ne xëy na dara waru ko ci war a jàpp na ne xëy na lu baax loolee may def dana tax lu mu def ci nit nit ñi suñ borom du ko topp ci loolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam le na nag kookee nga xam ne dafa nekkoon ci àdduna si te jàpp ne li mu war a def mooy bàyyi xel boromam képp waaye doomu aadama yi bàyyi yu leen xel li mu war a seq ak ñoom doxewu ko nam ko war a doxe na xam ne bu ëllëgee loolee nga xam ne moom la leen ñoom doomu aadama yi nga xam ne ñoom yiw rek lañ bëgg foofee ndax kër la goo xam ne fa la ñuy sax te xamuñ te amutub àpp kon li nga xam ne moom la doon def ci lu yiw dañ koy jël di ko jox ñooñee mu doon tooñ bu demee ba nga xam ne yiw wa jeex na ñuy jël ñaawtee fi ñooñee di ko teg te kon bu demee ba sa saw yu saw yu jeex dese woo lu dut ay ñaawteef ni ko di sëñ Saliou waxe woon rek ne àjjana moom lu bon du fa dugg àjjana lu bon du fa dugg kon kenn kenn du yor lu bon te jàpp ne aj loolu lu bon loolu ya nga yor dana la a dugal kon suñ borom bi nga xam ne moo mën a jàppalee te mën a dimbalee yàlla nañu dimbaleel boppam yàlla nañu taxawal boppam ba ñuy xam li nga xam ne moom la ñu war a séq ak suñ ñu di ci def suñ képp kattan li nga xam ne moom la ñu war a séq ak doomu aadama itam di ko bàyyi xel nañ ko war a bàyyee xel loolu suñ borom mën na ko jàpp dina ko yàlla nañ ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin